ils sont dans le rôle. Alors, euh, Samba, euh, le ministre de la Justice, revenir na encore euh, cette décision de justice dans l'affaire Adissar Ousmane Sonko. Euh, Warner, dans l'ordonnance de renvoi, il n'a pas été question d'acquittement ci li nga xamantene mom mo jëm ci viol bi mais dañu ko requalifier ci corruption de de de mineur yow naka nga jàngatee loolu nga xam ne yëkkati na né nee ay cadeaux. Ismaël major Fall. Mm. xawmoon dafa am loo xam ne seetlu naa ko xaw ndax yéen seetlu ngeen ko wala déet euh, soo jëlee Ismaïla Madior Fall droit la jàng. Mhm. nga baal ma de soo jëlee sidika Kaba du droit la jàng soo jëlee Antoine Diome du droit la jàng Amadou Ba mënut bañ a ñàkk jàng droit parce que ENAM moom ku fa nekk boo fa jàll lu mu dee am nga ay notion de droit donc boo xoolee autour même de la table gis nga moo tax ñuy jàng droit tey war nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax. a baax parce que bu fekkee tu dis le droit au nom du peuple peuple bi taxaw ne la waxoo droit kon nga war nga xoolaat li nga jàng ñaar moomu naam mooy li nga jàng wërut wala li nga jàng wër na waaye waxoo la nga xam ne moom nga jàng te problème yi nekk nii yëpp bés bu set mbiru droit moo koy indi mbiru droit mbiru droit kon jàpp naa ne ñoom war nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax muy benn ñaareel ba nit ki boo ne ko yow da ngaa rey nit da ngaa rey nit ba suul ko ñu ne ok police kaay def sa enquête gendarmerie def leen seen enquête ñu dem ba justice nga ñëw nga ne ko ah yow sa waay de dañ ne woon da ngaa rey nit ba suul ko waaye reyoo ko parce que nit ki mu ngi nii di dund mu ngi nii taxaw kon reyoo ko suuloo ko mu ngi nii taxaw waaye portable am ba nekkoon ci kër ga da nga koo loolu ñuy wax rek qualification des faits mm-hmm. donc portable ba nekkoon ci kër ga da nga koo sàccoon yow nga nit ki da ngaa rey nit ba suul ko léegi nga ñëwaat ba justice nga ne ko yow reyoo nit de waaye portable ba nekkoon ci kër ga da nga koo sàcc kon bal ñu xool ci portable dañu la ciy jàppee loolu mooy singili loolu la wolof di wax singili le loup et l'agneau si ce n'est toi c'est donc des euh, l'un des des tiens c'est-à-dire que nit ki moom bëgg nga koo réduire comme ni nga ko waxee à sa plus simple expression kon bépp taxawaay bu mu munti am yow moom l'essentiel na nga ko condamné la preuve constitution moo may opposition ñu existé dem na sax bu ne ko chef da nga war a sax am chef de l'opposition ñu jël ab budget sax jox la ko

mooy yëf la parquet nag parquet tamit partie prenante le merci beaucoup mooy oui. motax tax mu bëgg ñëw na pour wala kon séparation des pouvoirs amul Sénégal séparation des pouvoirs amul Sénégal les trois pouvoirs là Macky Sall lepp mo ci tek coñcoom bo jëlé le pouvoir exécutif kan moko yor du mom hmm. japp ay surgam ñooñ ñooñ ñëpp mu japp mom ay surgam mom lañ japp surgu mag bi moom mu japp ay mbindaanam bo jëlé ministre de la justice ku ko jël du Macky Sall Macky Sall ko jël. wa mais loolu xam nga. non du du du du Macky Sall kese la ñu. est-ce que askan bi askan bi ñoom ñooy nommé ministre de la justice à travers des consultations populaires dañoo délégué pouvoir bi le président de la république. président de la république moom dem jël ku ko neex. maanaam président de la république bu deful politique bu nekk président de la république mënut a jël ministre de la justice. mais mais loolu sax du du raison pour que quand même un ministre de la justice du du tëddee njaaxaan. moo tax man moo du mënu ko amul tax mënu ko. parce que kilifaam moo tax. kilifaam day politique moo tax gis nga fii bi ministre de la justice mu taxaw nekk ministre de la justice nek ministre avant 2000 euh, après 2016 mooy 2017 avant ñukay koy mu taxaw administration pénitentiaire la taxaw buntu administration pénitentiaire les vidéos sont là Mune je le dis et je le répète pour trois fois pour que nul n'en ignore que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Macky Sall deux mandats lay bu ci paré paré na ci. ce même ministre biñ ko daxé bu jëlaat ko mo taxawat pour des raisons politiques Macky Sall war na def troisième mandat. On mm. a déposé sa troisième candidature C'est la même personne c'est le même ministre mais moi, les deux faits C'est ce même ministre là qui était à l'origine de la révision donc de la constitution en 2016 pour nous, bindaat ko moom ci boppam moo ko wax Quand finalement kan ngay Fall avant 2016 Ismaël Major Fall après 2016 après révision constitutionnelle Ismaël Major Fall après 2019 vous avez ñu que jëlee mu de troisième fois.

nek ci mom agenda yor ci man j'interpelle les organismes de défense des droits de l'homme sur deux ou trois faits man un droit ne duma ci parce que nit ki boy wax da ngay wax ci xam-xam la pour mais français bi ma man un compte maximum jugé nekku fa gisuñ ko te muñ koo jëli indi ko par force ne ko da ngay taxaw ñu jugé la mm-hmm. loolu mooy un contumace boo defee boo ko jugé ba pare moom bu yëgee ne jugé nañ ko mu ñëw taxaw ne ah man de da nga maa jugé woon te nekk mu fi ñëw moon wala damaa réeroon kon maa ngi nii taxaw ko jugé ma waaye ki nga xam ne yaa ko jàppee yow nee nga ni ko bëgg a dugal yow nga dem jugé ko par contumace mais kon jaaxal na ma ana contumace foofu mm. ki nga jàpp yóbbu këram kay ko ko tribunal ne ko kaay ma jugé mais mais quelqu'un qui s'est pré... qui s'est pas présenté. loolu on va vous forcer quand même. la loi ñoom ñoo koy. le moment du procès dafa daw dem ci Ziguinchor. s'il vous plaît Adama s'il vous plaît Adama. le moment du procès il était à Ziguinchor li ngay def nii maa la s'il vous plaît le moment du procès il était à Ziguinchor. Fatou oui Adama ñu ñu bàyyi ko mu égalé allez-y euh, Samba. ñom ñoko jël indi ko ba kërëm lutax tax ko yóbbu ko tribunal juger ko force reste à la loi du ñom ñoko wax. motax tax yóbbuñ ko tribunal ñu juger ko ça veut dire que ñom dañoo def sen plan ba paré dérouler ce plan parce que l'on lañ ci namoon pour lan pour que ñu ne du en 2024 D'abord, ensuite j'interpelle l'UNICEF j'interpelle euh, le FONUAP Fonds des Nations Unies pour l'alphabétisation de la population j'interpelle surtout surtout surtout la communauté sénégalaise surtout les guides religieux Ousmane Sonko ci la personne d'Ousmane Sonko Moussa Sonko wala ak Sonko ça n'a rien à voir ki nga xamne ne la wara mëna jangi wax dëgg yalla ya xeyti mulan lan mo ci yonam ci lo xamne ne ay décision papam la lan lañ wara mëna tejje wa tëje kër Ousmane Sonko tëj seeni dom tëj seeni yaay tëj seen wa kër ñep pour lan parce que ils ont affaire à Ousmane Sonko lan lañ mëna tejje un quartier un quartier nga tëj ko barricade ko totalement bu avocat sax avocat sax mënu fa egg bu tay un un député comme man mënuma dem sax seeti sama leader de parti nañ waxante dëgg bu fekkee droit de l'homme foofu salfaañe wu ko lan moo des ci Sénégal kon moo tax j'interpelle les guides religieux ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les régulateurs sociaux nga xam ne bu ñu waxee ñu dégg leen gis nga bu ñu waxee ci suuf ba kenn déggu leen nañ wax ci kaw ba ni ko suñu Abdoulaye doon defee wala maam Abdou Aziz Sy doon kon defee da baax boo defee nit ñi dégg leen xam ne lii ak lii moom moo am gis nga 2021 mars 2021 bi ñu ñëwee sëñ Bass Porokhane bi mu ñëwee ne sëñ moo ko yónni président Ousmane Sonko da leen sëñ bi fii amut kum fii ñaan ku muy jox ndigal nga koy jëfe moo fi nekk mars 2021 Ousmane ko jël décision ne sëñ bi ndig lépp ndigal bi mu ñu jox ñun moom la ñu moo tax sëñ Mountakha bi mu jàkkaarloo ñu ne ne yéen am ngeen amal naa leen bor boo xam ne bi bu soobee yàlla dinaa leen ko hmm. ñun jàpp nañ ne tey euh, sunu maam sëñ Mountakha al Mountakha ñu ngi koy ñaan mu wax ci kaw ñëpp di dégg Sénégal yëpp di dégg ñu xam ne réew mi am na ñoo xam ne dañoo fa ne ñoo ko moom mais moomuñ ko dañ leen jàpp surga ñoom les régulateurs sociaux là ñoom ñoo moom réew mi parce que askan bi ñoom la ñuy nekkal parce que askan bi ñoom lañ yaakaar parce que suñu maam borom Touba suñu maam El Hadj Malick suñu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoom ñoo fi def mhm. beneen mbir ma ma ko au moins au moins Adama mu ngi nii moo wax ngay dégg moom nee na jeunes yi nga xam ne pick-up yi d' abord ñu ngi buntu Benno Bokk Yaakaar ki ah, ah, kii euh, permanence Benno Bokk Yaakaar kon reconnaître na pick-up yi am na mi benn ñaareel bi reconnaître aussi jeunes yi ñoo jóge ci permanence bi dugg ci pick-up muy ñaar kon muy deux faits parce que les faits sont sacrés même le commentaire est libre ñettel ba moy mom nee na yi dañoo demone di dindi li nga xam ne tal tal taal pneu yi ak mbalit mais man weer bu dé man kan lay fay xaliss pour mu défal ma maintien de l'ordre du les forces donc des maintien de l'ordre du ñom lay fay sama xaliss man yow mom ngay fay caab mom lay fay mom la ki di fay aadama bi lay fay buñ ko daggee mais lan moy jeune yoy lu seen yon ci maintien de l'ordre lan moy seen yon dem ci ñom ñoy UCG wala ñom ñoy dindi mbalit mi ñom lu seen yon kon à ce moment là lan lay woné moy que ne ñoom déjà reconnaître nañ né kon ñooñu bugguñ leen jox tour parce que na ay jeunes lañ des jeunes bien dotés de force jox leen ay pick-up la nekk ci biir pick-up yi waxuñ ko mais ñun li ñu gis ci ay vidéo sénégalais yi gis ko ci ay vidéo sénégalais yi ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis wuté na ak lool mom li wax waaye nag sénégalais ñu ngi jugé te parce que la nation sénégalaise elle est libre la nation sénégalaise ba ñuy jàngal résistance ci C1 C2 boobu dañu ko waxal la nation sénégalaise va résister parce qu'elle est obligée de résister parce que tous les soobee yàlla dañu leen di parce que tous les ci biti combat de salubrité publique Et là, là, Amad wax nañu revenir également sur cette résidence surveillée ou blocus euh, bu Ousmane Sonko aujourd'hui est-ce que cette résidence surveillée est motivée juridiquement ndax motivé nañu ko euh, ci D'accord, merci beaucoup. monsieur le député laa bon un tuuti leer éclaircissement tu as raison que jàngu comparé euh, dafa aussi un de droit mm-hmm. mais xam nga pour ñu ñuy déglu ñu leer opinion bi un bon xam nga ci droit dafa am lu ñu ooyee gis naa ko monsieur le député joxe na léegi benn exemple si ku ñu rey ak ku ñu fekk ne sàcc portable parce que dafa am ay infractions yu ñu ooyee les infractions connexes infractions yoo gis dafa am lu ñu ooyee euh, infractions yi ñooy bokk nu ñu ko koy ñooy bokk papa mais bokk yaay soo jëlee ci les infractions contre les personnes maanaam personne physique li ci gën a mag mooy assassinat mu tegu meurtre mu tegu homicide volontaire wala homicide involontaire wala mu tegu aussi cause de blessure volontaire wala cause de blessure involontaire noonu lañ ma dafa bi gën a rëy bi gën a wàcc ba ci gën a tuutante boo demee tamit ci infraction contre l' état ay attentat à de l' état ay appel à l' insurrection ay détournement de deniers publics ay euh, offense yëpp infraction yoo xam ci état la jëm am na infraction aussi ça mooy infraction ay ay vol escroquerie abus de fiance abus de biens sociaux infraction yi dañuy dafa am dañoo bokk ne mais bokk pap loolu famille la boo demee aussi si infraction contre les bi ci gën a mag mooy viol am proxénétisme am pédophilie am euh, euh, comment dirais-je corruption sur les am corruption de la jeunesse loolu lañu toppalante connexion yi noonu lañu demee tey ma jox la exemple tey mën nga gis nit ñu ne diw moo rey diw ñu def enquête def enquête de mbëccëg bi ñu ne ah rey ko mais fañ ko fekk fa yor arme arme lañ fa fekk xam nga rey nit ak yor arme peut-être wala euh, rey ko mais sàcc na sàcc na portable bi mais ñu xam ne rey ak sàcc nekkul infraction yu connexes su boobaa juge bi tey day seetal tey dalay da la setalee ci wàllu rey bi day dindi beneen topp bi la procureur toppoon te amul connexion jàll ko procureur na ko dama ubbi enquête ci boobu que ñoom ñaa amul connexion day ma jox exemple affaire Ousmane Sonko bu nekkoon procureur dafa jël beneen infraction moom infraction connexe maanaam amul lëkk lënk Ousmane Sonko yoon da koy satal ju danaan rencontre xam nga satal na ko ci infraction de viol bi satal ko ci port d'arme bi ni kon danaan ko dama nga ñibbi na procureur sa infraction bi amul benn connexion infraction bi ngay laaj kon dama nga ubbi si information judiciaire noonu lay demee loolu mooy différence infraction connexe infraction par rapport ak ak ak aujourd'hui blocus bi est-ce que voilà maintenant ñoo ñoo quant à maintenant le blocus blocus bi li ma ci gis mooy est-ce que amul un soubassement parce que yone daf toute décision contraire ou décision boo xam day fas day wàññi liberté doomu aadama wala décision bo xam c'est une décision négative dañ ko wara motiver wala ñu bind ko loolu principe bi mais man lima jappé jàppee blocus Ousmane Sonko dama jappé ne l'état l'a pris au mot maanaam état non mais mais juridiquement. c'est une violation. may ñu dama né puisque amul que normalement dans les principes tout. mesure boo xam ne dafay restreindre liberté nit ki wala dafay am dañ ko war a bind motivé ko loolu mooy principe bi mhm. mais dama ne dans le cas d' dama jàpp que ne moo tege suufam dama jàpp ne tegewul ci yoon c' illégal mais dama ne gannaaw l' état la pris au mot laa wax parce que moom daf ne dafay ñëw Dakar ci li ñuy wax ne ñëw déloger président état na ko dama lay topp sa kàddu xeebu ma ko dama lay topp parce que la sécurité elle est

la, réponse gardée par l'administration pendant deux mois vous refuse su boobaa mën conseiller, considérer ne ministre dafa bañ quand kon moo bañ te Ousmane Sonko ci dans l'illégalité dans ce cas là aussi il peut prendre aussi la décision tant que devant le conseil devant la chambre euh, administrative de la Cour suprême pour nous lever blocus après le juge c'est ça que j'ai dit. Mhm. Mais là, il n'y a aucun acte juridique qui, le justifie. Euh, alors, nous que euh, c'est une violation. Nous mais politiquement, cadre politique, il euh, y a des Sans que nous avons cadres nous Ousmane Sonko dans nos il y a aujourd'hui qui fitne fitne. aujourd'hui, peut-être motiver une décision pour nous avons alors Fatou dafa am euh, ay kàddu yu yu fi djib yo xamantani baxna trop ñu ñu ñu ñu ñu leeral ko honorable vous avez parfaitement raison man mi je suis issu de la faculté des droits alhamdoulillah nak ba Ismaïla Madior musuma dicter phrase mais je suis très déçu quand je vois Ismaël Madior à la télé dire des franchement des des choses yo xamantani ñun ñuy mujjee xeeb